FM Jalak nasional bi dina tàmbali le 30 mai di fanweeri fan ci weeru mai bi dina dem ba ñaari semaine mu des léegi xam ñi si bokk ak ñi si dul xale bu mbay faal fas porte plainte ndax dañoo gëm ne bal fital lañ ko door rax am na mbir mi ler dafa war a leer yi ci mi fani waral naka ñi tëj l'école yi ca diwaanu Ziguinchor ak diwaanu Sédhiou lu ko dale tey ba alxamis bi di nakarum di dogal xam ci yaram football sunu gaynde ndaw yi di yi di jongante final Coupe d'Afrique tay ci goudi sen diggante ak Maroc bu 21h di manam juróom ñent waxtu goudi ci goudi joté lay doon ci Algérie dañu and ak yeen ci xibaaru bitim réew ak li ci yéenekaay yi laataa ñuy jeexale gis-gis ñuy waxtane football tay ak euh, finale bi nak la wara def ba suñu gayndekat yi def ni sen euh, mag ñi daal di jël coupe bi mu nekk li gën fa ci xibaar yi ne suñu niñ jaay faram-fàccee Aliou baax moo nekk ci machine bi mbokk ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi dañ koy door ak jëye ji xew ca na benn waaye nag di benn ASP moom nag euh, la ay sàcc dugg ci këram daal di koy euh, faat euh, gendarmerie nag ubbi na enquête ci mbir moomu la ngir daal di koy leeral Lamine Ba. askan wa yeewoo ci quartier bi di Badiankoto nekk ci biir commune bu Bignona tiitaange dëgg la ñu doon di big ci guddi ndaxte am na ay doomu aadama yi nga xam ne nañoo yore seen i ngànnaay ñoom ñoo dugg si si seen i quartier bi dem ci kër ki nga xam ne nag moo di Matar Camara ndaw yi xam ne ma ngay amee ñaari fukki at ak juróom bu ñu fa yegsee nag dañoo bëggoon cambriolé nga xam ne nag moo di këram moom nag bu mu yéggee ne yegsi nañ fa ci la jóg ngir mën leen a dàq waaye ci e xibaar yi nga xam ne jot nañ ko taataan bi mu génnee néeg bi daanaka dañ ko sot dóor ko bu bakkanam jaar farot ba léegi ñu ngi ñu xamal ne dóor yi nga xam ne dóor nañ ko métti na loolu ba tax na amuloon benn chance bi ka dëkkandoo yi jël see ngir rawale ko fa nga xam ne nag moo di hôpital ba ndaw boobe nag ñoo ngi ñu xamal ne ASP la te liggéey ci service départemental de l' agence de sécurité de proximité bu Bignona jamono ji nag néewa ñoo ngi ko teg ci centre de santé bu Bignona gendarmerie nag ni ñu xamal ne ubbi na ci ab enquête Bignona nag ayaata ngi nii ñu ngay laaj nguur gi taxawal leen li nga xam ne moo di ab commissariat ngir ñàkkum kaaraange wi nga xam ne ñoo ko ci nemmeeku waaye loolu dafa mel ni ba léegi kilifa yi bàyyeeguñ ci xel Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias Lamine Ba des euh, ba léegi euh, ci li ni mel wax ci keneen ku ñu faat euh, di xale bu góor bi di Pape amatu kaytax di xale bu góor bi nga xam te moom la ñu faat ci manifester yi amoon ci altine bi ñu weesu ci Kër Mbaye Fall loolu nag soxal àtte bi war a ndox diggante Ousmane Sonko ko Adji saara gannaaw bi autopsie bi génnee nag wane ne dañ ko faat te projectile moo ko faat njaboot gi nag nee neen mbir duñ ko bàyyi noonu dañoo fas yéene porte porte plainte ñoom sax gëm nañ ne balu fital euh, moo ko faat moom élève boobu nga xamante ne mi ngi nekkoon ci classe quatrième toll ci fukk at ak ñeent dañuy déglu maamam bu góor di ko juróo papam Fala Keita autopsie bi li mu déterminé rek loolu lañ jàpp quoi te loolu lañ jàppoon ba tey xanaa topp yoon rek on n'accuse personne mais on va plainte dinañ topp yoon waxuñu diwoo ko rey wala kii moo ko rey mais ce qui est sûr et certain li ñu yoon may pour ñu defal ko xale bi mooy juste ñu def justice dinañ porter plainte incha allah mais déterminé wuñu diw moo ko rey wala diw moo ko rey on ne sait pas encore parce que ñun xamaguñ daal mais ce qui est sûr certain mais bal moo ko pénétré mais rapport d'autopsie bi moom li mu wax moo di ne projectile moo ko fàtt projectile est-ce que wuutewul ak bal projectile ak bal mënuñoo wuute projectile c'est quelque chose qu'on projet yaa may dégg baax dërëm la hmm, projectile loo xamante ni day traverser tout le corps kooku kañ base rek la mën a doon loolu amul ay explication wala ñu si détaillé waat loolu c'est très clair loolu moom dafa leer naañ projectile loo xam ne dafa traverser tout le corps kooku bal kese moo ko mën paaka mënu ko xeer mënu ko wala flèche xanaa te flèche moom amul fii <laughs> donc c'est très clair loolu lañ bëgg mu leer nañ hmm. mais naw ñu diw la wala mais bëgg nañ mu leer nañ nañ léegi moom xale day nañ ko le 17 ci guddi waaw. barki démb bu ñu jógee hôpital rek bu ñu jotee rapport d'autopsie bi. Ah, yéen nu ngeen dundee famille bi nekk nii ñàkk nii si circonstance seen doom. tiis a tiis a tiis a tiis a tiis lu ñu bett lu nekk trop trop trop trop trop trop. vraiment toute la famille était bouleversée. am na benn magam boo xamante sax moom na la ko cee ñàkk ndax dafa mujjee seen bopp mais heureusement yàlla indiwaat quoi. mais moom xale bi dafa bokkoon ci manifester yi euh, dafa doon manifester wala mu ngi manifesté wul moom à part école football bi muy def jàng lay def c'est un élève élève bu brillant la woon jàngam la doon toog tool su jàngiwul day dem école football wala mu toog atelier papam point final loolu amul c'est dans le même quartier qu'il qu'il a été mu nekkoon Fall Keita di maam bu góor bu xale bi di Papa du Keita di xale bi ñu faat ci manifeste yi amoon ca Kër Mbaye Fall nag altine kan nag rapport euh, bu autopsie bi li mu wane moom nag xale boobu mooy projectile moo ko faat ndax projectile ak bal benn la am déet leeraleeg Mouhamed Ali mu baax. projectile boo ko déggee mun na nekk bal arme à feu mun na nekk xeer mun na nekk weñ itam wala sa leneen kon projectile waaye nag pour mu nekk projectile foog ñu mën ko déplacer projeter ko ci yenn vitesse yi lan mooy différence kon bal pistolet walla beneen projectile weñ walla xeer lépp mi ngi ci vitesse bi naka noonu itam ci xeetu gaañu gaañu bi mu bi mu mën a occasionné buñ sukkandikoo ci benn spécialiste boo xamante ni waxul turam bu fekkee ni gaañu gaañu la boo xamante ni weñ moo ko def wala leneen li nu mel fu muy dugg ak fu muy génn bu fekkee ni am na ñaari orifice benn lay doon amul benn boo xamante ni day ëpp moromam bu fekkee ni nag balle boo xamante ni pistolet wala arme à feu moo ko tiré entrée bi mun na ndaw. sew waaye sortie bi mun na yaatu naka noonu itam mun na indi impact bu am doole ci biir yàq cellules yi ci biir kon baal bi bu duggee du noonu lay génne lu muy yàq ci biir yaram nit ki day Motakon, kon ngir Ki analyser def conclusion foog mu xol blessure bi hol trajectoire projectile bi naka item. itam xetu ganyu gañu bi Balamui muy indi ay conclusion bu bal de debrilol. dégâts te dommage mu indi lu ñuy segment. saignement nàcc-nàcc ay dam. dam wala yenen dommage ci organe yi dégâts mi ngi dépendre ci endroit bi touché ci yaram wi ci bu balbi, bi jël naka ki itam ci type bi ak vitesse Mouhamed Ali mu baax fitna yooyu amoon ci semaine bi euh, ci diwaanu Ziguinchor euh, waral sax ba euh, ñi nga xam te ne ñoo yor njàng mi ca diwaanu Ziguinchor waaye tam ca diwaanu Sédhiou daal di jël dogal dakkal njàng mi lu ko dale tey jii ci àjuma ji ba alxamis bi di ñëw loolu nag ngir bañ daal fitna gi daal di laal lekkool yi di loo xam te ne nag foofa ca diwaanu Sédhiou ñu bëri ñu yëngu ci njàng mi rafetlu nañ ko nee nag karange gi moo jiitu leeralek Bakary Konte bu Sédhiou mom nak dafa daal di décider suspendre cours yi fi ci diwaanu Sédhiou li ko jëmee vendredi ci vendredi dem euh, ba jeudi 25 mai lool nak nek décision boo xamante acteur éducation yépp ñu ngi koy rafetlu Kouma dans Sow mooy président union régionale des parents d'élèves fi ci diwaanu parents d'élèves yi d'accord nañu. xam nga lo gis ñëpp xam nañ né Sénégal actuellement ak affaire yi melni affaire yi am qui euh, Sénégal vraiment kenn mënu ko contrôler comme mon moyen yore euh, xale yi mom xamna né décision bala moy jël décision bi dafa xalaat chalat na bé xamna na ah li de def motax mu def ko té bu mu ko defee ñun ñëpp parents yi d'accord nañu ci loolu luma la ñaan ki parents yi mooy ngeen garder seen doom yi ci ga Abdoulaye Diallo secrétaire général bu CELS bu Sédhiou mom nak loolu mo nek xalaatam ñun tamit jot nañ ne décision IA bi côté bobu la jëm moy dafa bëgg protéger xalé yi protéger élèves yi puisque gis nañ ne chaque fois bu manifestation am fani yi biir Sédhiou région bi xalé yi lañuy ñuy élèves yi lañuy ñuy ñuy sandi xeer fi di daxante ak policiers yi loolu lañuy gis ne jaaduwul place am école la du si tali bi di def politique. moom nag mi ñax enseignant yi. gis nañ ne temps yi ñu ngi topp ay jàngalekat yu ñu soupçonné ne dañu doon instrumentaliser manipuler élèves yi génne leen si rafetul ñu ko loolu du cër enseignant enseignant warul manipuler warul formater esprit xale luñ yoni koy yónni mooy jàngal moo tax ñuy leen di à leur sens de responsabilité. Présent bu union régionale bu parents des yi nekk fii ci doonu Pakaaw di ñaan parents d'élèves yi ñoom ñëpp ñu impliqué wu bu baax ci sensibilisation bi pour nag xale yi ñi bañ leen manipuler dugal leen ci xeex bi pakari Konte Sédhiou rajo Futur média Media Bakary Konte juróom-ñetti minute euh, moo tegu ci une heure ca sum Asimandi Brassou nekk foofu ca diwaanu Sédhiou. ak RFM kumpa jeex na. wéy ci xibaar yi wax lu soxal wàllum politique ak dialogue national bi nga xam te ne njiitu réew mi woote na ko léegi leer na ci xibaar yu RFM euh, waxtaan yooyu di dialogue nationale bi daañu ko tàmbali fanweeri fan ci weeru mai bi ñu nekk mu nar a am nag diirug euh, fukki fan jàpp fukki fan ak juróom mbir yu bëri nag euh, soxal réew mi daañu ko fa waxtaanee waaye ba fii nag leeragul ci kuy bokk ak ku kudul bokk leerale Koumba Sandiane fay wàññi gi tàmbali na dialogue national bi dinañ ko door fanweeri fan ci weeru mai bi gannaaw feetu Pentecôte bi ci diiru fukki fan fukki fan ak juróom ana kan moo nangoo toog ak président Macky Sall ci table gi ngir waxtaan jamono ji nga xamante ne Ousmane Sonko mi ñenn ñi jàppee opposition bi am procès bu ñu renvoyé benn lata bés rek laata waxtaan yooyee moom leaderu parti Pastef nanguwut loxo bi njiitu réew mi tàllal Ousmane Sonko jàpp ne dialogue ko mënta am te réglé wuñu lii taxaw am solo mooy makisal Macky Sall du don candidat ngir ñetteelu yoon ndax dialogue na am ci wutek adversaire politique Macky Sall gi wooteeb waxtan goge ndax dafa am yeneen yu ko wundu bu ne waxtan ci li yittel Sénégalais yi jamono ji mu bok ci dal am ci climat politique gi yëngu gi ñu nemmeeku tout Touré ne won njiitub jëwriñ ji ci jamono Macky Sall tey ji mu nekk ci kujje gi ne dialogue bobé dara waralu ko lu dut F24 moom wul wuy ci bobé position ye yeneen leader bu opposition bi amé ko ci mel ni Malick Gakou Aïda Mbodj Déthié Fall pur bu Serigne Moustapha Sy ñu doon ñom ñëpp ay membre conférence des leaders bu yewé askan wi mukk lañ wax Macky Sall duñu tok waxtaan bu ci F24 mom mouvement bi di xamné ne ne dup nangoo ci dialogue bi luddul dul président Macky Sall dafa def déclaration né mom du sampat nëndëm waaye it nañu daal dee ay waay politique ñu daal tecc ci kasso bi yu mouvement bobé jappé ni ay détenu politique mu melni ay condition la yu ñu teg yu tabbi ci ay nopp yu ko déggut yémul fofé ndax yenen kàngam yu faré ci opposition bi ko ci melni ni Khalifa Sall Barthélémy Diaz ñi ngank taxaw Sénégal bokk ci F24 ñom dañuy wuy ji ñu ngi ko génn Khalifa Sall yàggul dara muy wax ne rek it Diaz xam ne sax dialogue gii ñuy président Macky Sall ci mom la jóge ñeneen ñu am ci langue politique bi PDS libéraux yi dañuy wuy ji naka noni yeneen acteur politique ku ci melni Pape Diop bu bok gis-gis ak geneen ci société civile bi ñoom it dañuy bok ñu bëri japp ne war bok ci li ñu a manam terme de référence yi lu jëm ci ñettelu mandat bu njiitub réew mi éligibilité yenn candidat yi amnistie Khalifa Sall Karim Wade parrainage fichier électoral bi révision yii di article L29 ak L30 bu code électoral mu bokk it ci luy faral di ñëw ci kàddub opposition bi ne booy seet dialogue yi passé ay pong yu bëri yu ñu d'accordoon ak ay recommandations ba léegi nii kenn waxaatu lu ci jëm Kumba Sandiane Faye des ci wàllum politique ak ñi nga xamante ne ñooy ndaw ay bokk ci benn bokk yaakaar ca diwaanu Louga ñoom nag ñuy naqarlu seen parti bi li mu gëmm jamono ji foofu la ca diwaan gën dañu gis ne dara doxul nee na responsable yi depuis élection législative le tax sax ci mi mu di di xel tamit walum infrastructure foofu ca diwaanu Kébémer dañ ciy déglu Ibrahima Diallo vice président conseil départemental bu Kébémer ci micro Nafisat naqarul ak a mettitlu leen dara amuñu seen benn nouvelle bari ñoo xam dañ doon liggéeyal parti bi bàyyi nañu dem feneen ñii ñu nga toog jàpp seen njàmm ñii ñu nga mer te loolu nekkul dimbali coalition benn bokkee moo tax dañuy woo Macky Sall na jël en charge département fexe ba nga xamante ni lépp luy yokkute wu département bi ak lépp luy ndimbal bu war a département bi am ak lépp luy projet bu département bi war am ñu fexe ba département bi am tey ji ñun ñu yor suñu stade municipal bi nga xam ne ndaw ñi dañ koo soxla lu mot ay weer mu ngi en chantier te àgg ba pare aussi ñu ngi demandé à ce que président li nga xam moom mooy mébut département bi ñu fexe ba am hôpital boo xamante buñ ci bëggee faju dana faj moo gën ñuy jóge Kébémer di dem ba Louga wala dem ba feneen ak feneen ba tax aussi ñu ngi demandé à ce que président tey programme yi nga xam moom moo jëm ci programme xëyu ndaw ñi taux bi ci département bi Kébémer am dafa dafa néew trop nañ demandé principal à que ñu renforcer ko parce que Kébémer ndaw ñu bari amuñu liggéey. mu nekkoon euh, Ibrahima Diallo vice président euh, conseil départemental bu Kébémer yi noo tegal fukki minute ak ñeent euh, ci 50 ak Pout. pour man RFM moy radio bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor. leneen ci wàllum xibaar jëm ci waa Rivas di mbootaay gëmb mécaniciens yi ñoom nag ñu ci li ñu toxal mécaniciens yi wutal leen béréb bu ñuy liggéey ca jom ñaajo nee na nag loolu day jafeel seenub liggéey ndax woote yi fii ci ndakaaru la ñu nekk te nag loolu euh, ndakaaru lañ tamit saa su ne fu ñu nekk ñu jëlee leen fa yóbbu leen feneen nee nañ nag euh, mën nañ fexe tamit département bu nekk ñu daal di fay taxawal euh, garage ak tamit loolu daal la ñu bëgg tax bàyyi leen xel te jam ñaa jógal leen yóbbu arrangé wu leen ndax ñiy dépanné wu ñu bëri fii ci ndakaaru lañ nekk amina Ba ay déguerpissement yu amul app concurrence bu jaarul yoon regroupement bi ëmb artisan automobile yu Sénégal di xam ne ni dañoo taay di jànkoontek yi li jafe-jafe Seydou Diallo gis ni dañoo war a ay garage mécanicien ci département bu nekk fu ñu toog yi déguerpir yi utalu ñu ay place fa lañu jëm nu ko rëppal mu xaw a sori Dakar lool ne dañ fay transférer mécanicien yi nekk Dakar yëpp loolu mënul nekk parce que dégg naa ci ñenn ñi xamul ne mécanicien doot des Dakar ce qui n'est pas possible li mu am ci parc automobile bi fi nekk nekkul fenn xam chaque département wala chaque commune war nañu am ay zone artisanale xam dinañ fa def garage te ay tubaab yi ñëw di fi ubbi ay garage noonu ñuy dimbalee multinational yooyu ñuy ubbi ay atelier nañ ñu ko jox ñun ñu gérer il est artisan di jànkonte itam ak yeneen i jafe-jafe ci seen secteur bi ci Kër Massar lu ci mel ni ñàkk moins waaye itam lu ñu amul village artisanal Pape Sakho di njiital antenne départementale bu chambre des métiers mooy artisan yi fi nekk yëpp kenn amu fi foo mën a liggéey te boo xoolee département Kër Massar am poche fi des boo xamee même bu ñu mënul may dañuy defal location vente li ci des mooy ci wàllu wér gu yaram war nañ ci bàyyi xel ci wàllu li nga xam ne tey mooy formation yi war na leen ci gën a intégré ba ci matériel yi non fii waxuma la village mais pentre sax amago te vraiment bëgg nañ village boo xam ne moderne lay doon di lancer un appel son excellence président Macky Sall ak ay membre gouvernement ak autorité ne ci département bi ñu geesu artisan yi. regroupement bi ëmb artisan automobile yu Sénégal bëgg gouvernement bi daal di organiser ay waxtaan ak acteurs yëpp bu ko defee ñu daal di ut ay saafara yu mucc ayib ngir daal di sukkali seen secteur bi Aminata Ba Kër Massar rajo Futur Media. Aminata Ba bu ñu jógee Kër saax dañuy dem ba Saloum ca diwaanu Kaolack foofu nag ñi nga xam te ne kuréelu béykat yi jaaxle la am ndax nee nañ nawet bi léegi mu taxaw te ba léegi nii nag nu jiw di loo xamante nag ba ni di jafe jafe-jafe ci euh, nawet bi ñu dëgmal euh, ki ko wax nag di njiitu aar suñu momel muy sàkku ci kilifa yi ñu baral mbir yi Fatou Mbow kuréel bii di aar suñu momel mer ba futu ci waajtaayu nawet jilee seenum njiital di basiru Ba di naqarlu yéexaay bu ñu nemmeeku ci séddalum lii di jiw bi waaye ñu ngi méttitlu di ñaawlu toog ba heure bii kenn xamul ban opérateur moo lay jox jiwu kenn xamul ban seko ngay jëli jee ñoom mënuñoo wax ñaata tonne lañ préparé pour ñun. waaye di ko politiser kese. qualité bi rax si dolli quantité yi semence bi ak yeneen nekk lu leen soxal loolu jamono ji aar sunu moomeel di dànkaafu rax si dolli di sàkku ci baykat yi. ñaar fukki milliards yooyu ak ñeent lan la mën a jënd ci. jiwu ñu xam luñ koy séddale. li ñu bëgg a wax mooy. wenn jiw du fi lënd ren léppay leer. képp kuy jaay gerte ñun baykat. dagay ngay sa gerte ci balance lu mu tollu ci kilo ñu jox la ko waaye na ngeen fexe ba bépp commission benn kilo gerte bu mu joxe na joxe rosi ci mu jox jiwu bi képp baykat foo mën a jëlee ji jiwu bu la kenn jaay doole bu la kenn not ñun baykat yi ba fii ñuy waxee ak yéen gisaguñu matériel bu ndaw boobule. njiital bile mouvement di xamle ne doxalinu yenn ci ay woy politique yi jëmale ko ci kaw gi nekkul lu jub tax ba muy sàkku ñu daal di bàyyi xel seenum bopp bu baax a baax. ñun niti kaw gi ñiy opposé dimbalewuñ ñu ñiy gouverner dañuy nax dañuy mbubboo waaye yeneen ñi nga xam ne ñu ñooy activiste yi ak société aussi dañuy seetaan dañuy ñaan nag ndimbal tey woo tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy nitu gi ñu gën a xam seen bopp amal lii di tournée fii ci Saloum aar sunu moomeel di sàkku ci jëwriñ bu ñu dénk wàllu mbay mi mu daal di xoolaat doxalinam jëmale ko ci koppar bi nga xamante ne daal di koy dugal la ci biir bile secteur Fatou Mbow Kaolack radio futur média fatou mbow fu dara fatik eh, fu soriwul dara kaolack di fatik foofu nag ndaw yi dëkk ci il yi nee dañu gis ñu seen bopp ci programme mi nga xam te gi taxawal ngir ndaw ñi ami ki ko xam eh, eh, bu januar moom mu wax ne nag loolu moo waral ba ndaw ñi day di faral di jëli gaal ngir mbëkki mu xam ne yooyu la mu ko kon fatik gannaaw forum boo xam te ne ministère de l'urbanisme fa doon amal amina sa bu januar wàllu wi mi ngi ko def ci kanamu ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique nga xam ni daf doon teewee ab forum bu ñu doon amal ci Fatick moom moom la nguur gi teg ngir ndaw ñi mën ci am liggéey état moo ngi def mais xëy na ñi nga xamante ñoom la état di yónni pour ñu def mise en œuvre yi malheureusement dañuy xaw a sooxel yëf yi boo yegsee ci biir île yi loolu duñ ko fa gis la koy wone mooy xale yi ngay gis ci tali ñuy

cent jeunes yoo xam ñoo nga fa tok di xaar nan lañuy amé opportunité pour dugg loolu li indi moy ñak espoir. yuuxu wàllu woowu nak ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow deg nako mom sax nee bu yagul dara dañu recruter lu tolloo ko juróomi téeméeri ndaw yo xam ci région de Fatick lañuy dëkk ci programme xeyu ndaw ñi. xeyu ndaw ñi du ministère urbanisme rek. légui ñun ci ndigalu président danañ def 500 les îles du sable. vraiment j'ai entendu votre plaidoyer tiré du fond du cœur. moi je pense qu'il faut envisager des missions spéciales dans les îles du Saloum, une mission spéciale xool forum bi nga xam ne nag moom la doon jiite taxoon na mu annoncé ne am na ay liggéey rëy yoo xam ne daañu ko def ci commune yi nga xam ne ñoom nekk ci région bi yëpp ngir a ñoŋal cadre de vie ba dëkk bi di Baba bi di trésor euh, tëral yi pexe ngir jàppale école yi élèves yi nekk ci école primaire yi ci loolu sax ñoom nag xalaat nañu pexe yoo xam ne dafa jëm ci élèves yi nga xam te ne ñoo nekk ci CM yi di daal di jàppale encadrer seen rakk yi nekk ci primaire yi ci seen wàllum njàng Babacar Diouf. projet bi liy mébétam mooy fexe ba dooleel xale yi nga xam ne ñoo nekk ci école primaire yi ci diwaanu Baba Garage Mamadou Mansour Diop chargé de projet la ci fondation ci association Trésor. jël élèves yi nga xamanteni ñoo nekk ci CM bi ak lycée bi ñu jappalé seen rak yi nga xamanteni ni ñoom ñoo nekk ci primaire bi pour gën leen renforcer tay jii ni day permettre loolu bu fi euh, fondation xalé yi nekkul association Trésor nekkul maître yi nekkuñu fi. communauté bi ci boppam dina mën a assurer euh, xale yi seen renforcement dina mën a assurer euh, seen jàng dina. collectif des directeurs d'école ne li lu baax la wante nag am na lu ko jiitu Daoud Diop mooy directeur d'école bu Baba Garage. bi war leen a tàggat dina ci euh, projet bi ñu leen di tàggate ndax bu njëkk ba ñun ñi ñoo leen doon tàggat ñun jàngalekat yi waaye bu ñu demee ba ay xale war a ñëw normalement war nañ def ay ateliers yoo xamante ni dinañ woon xale yi ci ban yoon ak yan fexe yan fexe lañ mën def pour mën a nek ci école man école. boobu ñuy ñaan sax li di projet bi de fast nako ko def bala muy tambali leneen la Mamadou Massoud xamlé ku ñom seen rôle tey jii nii mooy jàppale yi nga xamante ñom lañ choisir pour que ñu renforcer ñi nga xamante ñom ñoo nekk primaire parce que ñom lañ gëna former ci formation. association Trésor ak fondation xalé yi ci projet bu ñëk bi ñu amal ci Baba Garage fexé nañ ba lépp luy kayitu juddu ñu régleel ko élèves yi nga xamné ñoo ci école Baba Garage Bombay RFM Babacar أهلا بتمغيو xibaaru bitim xew Seydou Nourou Ba lañ ci Seydou ñu ngi lay nuyu. di la fay la jogu jenn Mali lañ koy tàmbalee foofu nag ay mouvement yu jukko ngir euh, sensibiliser ñu ngi gën a bëri. waaw di ñaax askan wi nag lootee laata ñuy tàmbale lii di campagne bu jëm ci référendum bi am na nag yenn ci ay parti politique yu jóg ngir dal ne nañu woote déet am nag ñeneen ñu jóg ne nañu woote li nga xam moom mooy waaw ci euh, càxtu réew mi ñu dem nag foofe sax ñu gën ko xóotal ak coalition bu ñu tuddee COSEM di coalition bu taxaw ngir sattu saytu ni euh, élection yi ñi faral di jóg ci ay parti jëm ci ay yeneen wala sax ñi ñu ootee jamono ji lee ngir ñu wootee waaw am déet ci boobu le projet nag euh, faral waral nag ba ñu jàpp ne ñu ngay joxati lii di yoon ndax du jamono ji nga ko def observateur bi nag li mu bëgg mooy kilifa bi ñu dénk lii di élection yi fexe daal ba euh, ñu respecte date yu ñu jàpp maanaam la ko tàmbale ñaari fan ci weer juin ba fukki fan juróom benn ci weer juin bi ñu dégmal ngir ñu ubbi wala sax ñu tëjee lii campagne bi Saliya Kariba di euh, Traoré Mon ak coordonnateur boobu lay ci micro Abdoulaye Zanga effectivement dans la loi électorale euh, exactement dans l'article 80 loi électorale bi ci article 80 chapitre 3 euh, euh, ci nous jëm ci campagne électorale nena campagne bi dañ koy ubbi jëm ci wàllu élection njiitu réew ak élection député ñaar fukki fan ak ben l'ata bés bu wote ga kilifay transition ba nyom ñoom joxe nañ euh, bés ba nga xamante ne ci la campagne référendaire bi war a door bu lépp jaaree yoon nag ñaari fan ci weeruk juin lay doon waaye li ñu nemeeku

dañuy dem ba Gabon foofu nag euh, wax lu des avocats kuréel googu nag weer a ngi nii mu tàggatémbe. waaw weer a ngi nii daanaka dara doxu fi ci wàllu yoon lépp nag mu ngi tàmbali ci ba conseil d' état euh, daal di neenale lii di taxawaayu maître Raymond Obama euh, moom moo nekkoon bâtonnier ba am sax ñu jàpp ne daal ci jamono jii la ministère bu ñu dénk yoon war naa fexe ba daal di àddu ci yëf yi ñenn nag jàpp ne li doy waar mooy pro prox ndol bi jëm ci wàllu yoon daanaka dara watu fa leexale ku ma kalsum lii. ci ab waxtaan bi mu amaloon nag taskatu xabaar yi kii di maître Ange Kevin inzigu moom mu ngay dëggal ne jëwriñ ji yore wàllum justice moom rek moo mën a firndeel poste batonnier yi moom itamit moo mën a prévoir seen i vacances ba tax na ma ngay woo yi nga xamante ne ñoo génn ñu organiser ay élections ci weer yi nga xamante ni moo topp ci conseil de vacances bi mu nekk loo xamante ni avocat yi bari nag ñu ngi koy rafetlu wante ci beneen wàll ga kii di maître Gisèle Eyoué Bakale ci njàppandal yeneen mbokk avocat am moom ngay xamle ni leçon de vacances bi di di article 106 bu seen loi bi jëmmalu ko te muy xamle ni jamono yi ñu ngi nekk ci ab vide juridique dañ ko war a matal ma cay doole ne kenn mënut a dëggal lii di vacances bâtonnier yi ngir génn ci crise bi dañoo war a rek saisir lii di cour constitutionnel bi bile vide juridique nag mu ngi jóge ci loi atum 2015 nga xamante ni dafa wekku rek ci wàllum liggéeyu avocat crise bi nag mu ngi juddoo ci ab élection boo xamante ni dañ ko dàq bu ñu sukkandikoo ci maître Raymond Obam Sima moom ñoo ngi koy tuumaal ne rek matalul ponk yi nga xamante ni moom mooy tax mu mën a nekk bâtonnier ci yooyu le fànn nag mënuñoo saisir conseil de l'ordre mënuñoo def itamit arbitrage ci boobu le xat-xat nag jëwriñ ji yore wàllum yoon nag mu ngay xam ne ni jamono yi mënu cee àddu mu kalsum li euh, Seydou jigéen di sax na yan fay faat eh, mi ngi gën ci yokk mooy lu ñuy wax féminicide wax nga ko njógu loolu nag dafa am jamono joo xam ne nag dañoo gis na loi bi daanaka njëriñagul dara di loi boo xam ne dañ ko fa teg ngir mu indee jéego yu doy waar ngir aar soxna ñuy faral di faat am na nag lu mu néew na fukki ak benn ci ñoom yoo xam ne seen jëkk ñoom ñoo leen fàtt ci weeru janvier ak tey buñ ko nag méngaleeg at wi wala 2022 lu mu néew néew jot nañoo faat foofee euh, fukki soxna ak juróom ci daal yoo xam ne jàppante ak seen jëkk ñu watali euh, Iran euh, xibaar bi moo léegi-léegi nag euh, mooy Iran daal dina fàtt ci ajuma ji ñett ñoo xam dañ leen kon condamné woon à ndax dañoo demoon fekkee ab manifesté ci atum 2022 la woon ci nag yooyu la manifesté amoon na ay way taqalat yoo xam ne seen bakkan kon tey la ñeen juge daal leen a fàtt foofee ca Iran El Hadj Ndiogou Diène yegg legi ci xibaaru tagat yaram and ci ak Georges Déthié Diop Georges ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj li ci gëna fess wax nañ ko sank ci bop xibaar yi moy final euh, coupe d'afrique afrique cadet U17 yi euh, Sénégal nak 90 euh, minutes rek ni nga ko déssé ngir mu jël kubam bu njëkk. mu fas yéene xeexoo wala xëccoo kook ñi nga xamante ne ñoo di Maroc Maroc itam musut gagner compétition boobee mbir mi nak bu 21h jotee lay doon ci Alger ñaari entraîneur ya ne nak xamante nañ sunu ndaw lañu ñu yebal ca Alger soo da ci am. Sénégal comme Maroc ñoom ñaari équipe yépp jéego yi nga xamante ni seen mag ñi def nañu ko moo leen di gën a motiver ci gila jongante ñi ngi parcours bu baax ba nga xamante marocain yi defoon nañ ko ci mondial Qatar 2022 ci côté Sénégal itam ñu gis trophée continentaux yi nga xamante ni enchaîné nañ ko lu jëm nak ci finalu fukk ak ñentelu édition CAN U17 gile ñaari sélectionneur yépp ku ci nekk di biral ni xam nga bu baax sa adversaire Serigne Saliou Dia. c'est une équipe bo xamni ni gis visage bari ci mom au cours de la compétition amna des il a joué très haut yo xamni il a reculé jaaree son bus pour défendre ça veut dire que ay xalé yu xaw xarañ leen tuuti yu am dans le jeu mais je pense vraiment parce qu'on a joué trois fois maintenant là ça va être le match de la gratification pour nous. et au-delà de ce match il y a une finale derrière bind ce tour histoire du Sénégal defe bind déjà pour au finale mais histoire moom dafa faire gën a mat et am nañ occasion ça passera par rey Bob ci terrain parce que comme finale ça se joue pas ça se gagne vraiment ils sont préparés prêts ci aspect Bob. voilà pour défendre un petit fi Natangom, bu Maroc Momit, Lunimel, li mel équipe du Sénégal bile Saïd Chiba l'équipe sénégalaise a démontré le long de la compétition, c'est une équipe euh, très compétitif, une équipe euh, pleine de talents, une équipe euh, athlétique aussi. Donc il faudra sortir un grand match lors de cette finale pour mériter cette coupe. Et pour le moment, on a tout fait, Inch'Allah, pour, pour le faire. bii nag moo nar nyari ekibile guléet ñaari équipe yi lee di finale xamante ni gëjoon nañ ko gis ci gila jongante depuis ba Mali dané Afrique du Sud ci atum 2015 Fimne ni ne nii ku ci gagné ya nara doon juróom équipe bi nar jël titre Ghana Égypte Nigeria, Cameroun Gambie Burkina Faso Côte d'Ivoire ak Mali mu ne Soda Tiama, Alger Algérie Guerradio Radio Futur Media. dooleeg euh, équipe bu Sénégal ak euh, la new néewle naka noonu itam euh, force ak faiblesse yu Maroc sore ci am jox kaddu ay taskatu xibaar yi nga xamante ne ñu ngi suivre ñaari sélection yi. waaw ñaari équipe yi dañoo xaw a am style yoo xam ne dañoo wute parce que Maroc gis nañ ko depuis tournoi bi commencé mu am ñeenti xar kanam yoo xam ne moom day organisation boobu lay joué contrairement ak Sénégal bi nga xam ne. commencé bu léegi ben organisation la ñu donc côté marocain souvent dañuy euh, bëgg di yor ballon bi bëgg dominer jeu bi bëgg a teg seen tànk ci bal bi bañ ko yàkkamti pour mën a jot euh, attaques pour mën a dugal bi côté Sénégal euh, côté bi dañuy wax un peu sur le plan individuel parce que souvent bu ñu jotee xale bi nga xam ne Amadou Diouf wala Mamadou Lamine Sadio li ñu bëgg a def daañ ko daañ ko bëgg def faiblesse Sénégal mooy suñu yorul ballon bi suñu yorul ballon bi xale des fois dañuy am tendance dañuy fàtte ne dañu war a pressing ni ñu leen ko seen entraîneur di waxee pour dem récupérer ballon bi gis dal nañu sax contre Burkina mooy bii bi ñu jël bu ñu Sénégal dañu xam am tendance di seetaan équipe adverse bi côté marocain équipe la boo xam ne ci wàllu dëgëraay ci wàllu xeex duñ ko def souvent ñoom bu ñu yore bal bi dañuy football mais bu ñu yorul équipe bu Maghreb bi dañu am benn style de jeu di jouer ba si yàgg di tëdd maanaam di rey tax bi daal équipe bi bu ko attaqué day xaw a wàññi rythme de jeu bi mais gis nañu équipe bu Sénégal équipe joueuse la maanaam moom day attaqué rek chaque fois bu jëlee bal bi day dem ci kanam donc yaakaar naa ne Sénégal am na argument yoo xamante ni mën na daan Maroc moo xam Serigne Diouf bu Senegal nga xam ne benn but rek la encaissé ci demi-finale yi waaye Taha bu Maroc encaissé wul benn but ku ci nekk ci ñoom ñaar participé nga ci parcours bi nga xam sa équipe def Taha bu Maroc tamit gis nañu ni mu taxawe ci demi-finale yi arrêté na ñetti penalty muy doon xëccoo euh, une première ku ci nekk bëgg bind sa tour ci histoire football moo ku ci nekk tamit performance yi nga nekkoon da koy gën a yokku pour yaakaar génn ci ak ndam euh, nekkaat héros bi nga xam la xaar ci finale bi moo xam Serigne Diouf bu Senegal, moo xam Taha bu Maroc final bi kon tey ci guddi doon 21h foofu ci Algérie ñuy ñaanal suñu gaynde yi ndaw yi ndam mu fekk nag seen mag ñoom Sadio Mané lu jëm ci Coupe d'Afrique 2023 tirage au sort bi xam nañ kañ lay doon. Euh, fukki fan ak ñaar ci weeru octobre lay doon weer gannaaw euh, dernière journée bi nga xamante ne ci éliminatoire yi mu ngi am ci weeru euh, septembre tey ci suba la confédération africaine de football xamle boobee tirage au sort ëllëg nag gannaaw ëllëgu seen i ndaje comité exécutif bañ doon amal ca. Alger des 2023 nous ñu jouer ko jouer euh, janvier 2024 Côte d'Ivoire Kafitam euh, approuvé li nga xamantene modi calendrier éliminatoire du coupe du monde FIFA 2026 ci ab euh, communiqué comité exécutif bi né nous format bu yees yi euh, nañ ci boole dal juróom fukk ak ñenti association yi nga xamantene ne ñoo bokkee ca CAF ñu dugal leen ci juróom ñenti groupe ku jiitu ci groupe yoy nak da ngay qualifier automatiquement ci coupe coupe bobé ñenti meilleur deuxième yi ñom fas jouer ab tournoi barrage bu CAF ka tay gagner mom dem bokki ci tournoi barrage bu FIFA tirage officiel du qualification africaine ci coupe du monde 2026 bi euh, fukki fan ak ñaar ci juillet lay doon ci Cotonou ci Bénin éliminatoire yi fas d'or door euh, euh, novembre Ligue des champions bu CAF Al Ahli Espérance Tunis tey ci ngoon 19h bu jotee mu di euh, demi-finale euh, retour beneen ba nag ëllëg lay doon bu 13h jotee fas yéene boole ñi nga xamante ne ñoo di Mamelodi euh, Sundowns ak waa Wydad Casablanca. football ba léegi waaye bi yoon ca tugal ak championnat yi. Euh, ndorteelu ko 36e journée bu Ligue 1 française Olympique Lyonnais mi nek ci juróom lu place ba di jouer ak euh, Monaco bu ñom Crépin Diatta ak Ismaël Jacobs euh, ñom nak ñu ngi ci 4e place bi match bi bu 19h jotee lay doon ci Espagne 35e journée bu Liga Cadiz ak Real Valladolid bu 19h jotee ci Italie nak Sassuolo di dalal ñi nga xamante ñoo di wa Monza ci fanwer ak juróom-benneelu journée bu Serie A Bundesliga bi moom ndorteelu ndorteelug 33e journée de la Fribourg ak Wolfsburg ñoo fay joué fofu ci Allemagne. dañi del ci fi ci réew mi waaye bi pour wax walum basket ak assemblée générale fédération bi maître Babacar Ndiaye di wéyal euh, campagne mom mu ngi won ci Kaolack euh, dembu fofé nak ñu ne ñaari club yef né euh, mom lañuy andal ñuy àndal woteel ko moom nag mu rafetlu njàppale gogé mom maître Babacar Ndiaye dalal xeluk acteur yi lu jëm ci walum yittey club yu région bu Kaolack mom itam mu ne dana leen gunge jógee ci walum organisation tournoi yi nga xamantene ñu ko jegleel euh, petite catégorie euh Hadj Ndiogou âge électif bobé ñaar fukki fan ak euh, juróom ñaar ci wéru weeru mai euh, lay doon. jërëjëf Georges. Kenkeyri AAD moo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf vandal yi vandalisé woon dépôt dem dikk ci Kër Massar tama ëpp leen ni bu guddi yi ñu toll l'observateur di ñu xamal ci xëtamu njëkk ne ci manifester yamoon keroog ci Kër Massar ñi demoon taali watay Dakar dem dikk ci seen dépôt ba ñooñee alkaati yi ñoo ngi leen di wër wër gu jamono ji l'observateur nee nañu am na gendarme yu brigade recherche bu Kër Massar ñoo wàcc ca dëkk ba démb tasaaroo di wër bàyyiwuñu fenn ay numaan ba MTOA jàpp unité 15 Parcelles Assainies bu Kër Massar fépp la takk deri fat am na benn waay boo xam ne l'observateur ne nañu bi ko gendarme yi di jàpp këram la ko fekk muy ngénte doomam libération ne ko waajooje Faali Saane la tudd ca këram la ko waa GIGN fekk muy ngénte doomam ñu jël ko yóbbu moom ak ñeneen ñu ñëwoon yu fa amoon keroog ba ñu caxat-caxatee ko yàq fa lu bari ba ñu ne suba la ñu waroon a àtte Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko ñi def loolee am na ci ñoom ñetti étudiants yoo xam ne police bu Point E da leen a convoqué woon ñu bañ duñu wuy ji ba tax ñu saisir waa division investigation criminelle yéenekaay bi mi ngi ñuy fàttali ne ca manifesté yooye lu bari yàqu woon na ca centre des œuvres universitaires bu Dakar bokk na ci restaurant argentin ba fa nekk ak restaurant self manifestation yi amoon ca Ngor sursoi nee nañu kër ga ñu fa taaloon te ñuy wax naan kër ga journaliste bii di Cheikh Yérim Seck moo ko moom kër ga Cheikh Yérim Seck moomatu ko woon ndax da koo tayle woon banque bii di di Bimawo ci 90 millions bi fay jotee Cheikh Yérim Seck fayul ca la waa Bimawo jël kër ga jaayaat ko keneen kër googee nga xam ne fa lañ doon jouer série bu un café avec source waa nañu jeunes yi ngor yi ko taal ci seen manifester ga ndax jàppoon ne Cheikh Yérim Seck moo ko moom dañoo juum ndax Cheikh Yérim Seck moomatu ko moo ko moomu ko source waa nañu bi ñu mujjee jokkoo ak moom moom Cheikh Yérim Seck ci téléphone def na ay fan li mu leen wax mooy kër gi sama kër la maa ko moom te bu ngeen bëggee mën naa leen a doon def ci xale bi faatoon ci manifestation yi woon li nee nañu ci xëtamu njëkk li autopsie bi wax mooy xale bi arme blanche rayu ko balu fital moo ko certificat genre de mort bi l'hôpital joxe vox populi nee nañu weddina li ministre intérieur waxoon ne moo faat xale bi journal tribune bindee ko noonee ci xëtamu njëkk certificat genre de mort bu xale bii di Pape Amadou Keita la ca nekk ñu ne moo ko weddina li ministre intérieur waxoon l'observateur nañu autopsie bi nee na Pape Amadou Keita ab projectile lañu ko dóor ci xëtaru càmmoñ bi Ousmane Sonko mu yore téléphone portable am ci loxo ndeyjooram dóor ab simisam teg ci kabam photo boobee moo nekk ci xët mu l'observateur li fi def defoon fan yi mu di xëy-xëy ne mes kenn gisu ko fenn kenn dégg ko fenn ba mu yàgg mu jekk-jekk ne bu xeet wàcc ci mbedd si gicoor yi di wane boppam ak yaata yumbe loolee l'observateur xëy di jàngat ñu jànge ci anki dina jàngat beneen bu mu def ci Ousmane Sonko ak désobéissance civile gi mu woote yéene kaay bi gis na ci ne yëf yi paaka ñaari bor la ci moom maanaam mën na koo jariñ waaye mën na koo lor Basirou Gueye dib chercheur maanaam ab gëstukat mi ngi leeral ci anki dina kay lan mooy désobéissance civile ki Sonko ak Adji Sarr yéenekaay bi dañuy yeggee condition yu Ousmane Sonko teg ne mooy mën a tax mu dem janoo ji ak Adji Sarr talaata jii di ñëw ci tribunal bokk na ci ñu bàyyi ko mu am libertéem di dem ak dikk fu ko neex ak nu mu ko neexee beneen bi mooy ñu def ko ab procès bu dul ànd ak benn parparlo jël dossier bi dénk ko ay magistrat yu farul fenn yu faralul kenn suur soo mel ne ku naan ñu gaañaa ngi ci loolu ndax juge bi waroon a àtte Adji Sarr ak Ousmane Sonko di Hippolyte Ndeye jëlee nañu dossier bi ci moom dootu ko àtte ndax moom Hippolyte Ndeye sëram di Victorine Ndeye ministre la ci gouvernement bu Sénégal Quotidien nee nañu mu ngay gën a yaatu ak a yokk ne am na beneen mouvement bu ñu taxawal ci seen biir tuddee ko FEM mu di fësal émergence émergence ci footballu Sénégal ñu xooli stade yéenekaay mi xëy di ñu wax ne finalu CAN U17 bay am ci Algérie tey jii la war a dox ci diggante Sénégal ak Maroc ñoom gaynde yu ndaw yi stade yéenekaay mi ngi leen di ñaan ñu wuti beneen juróomeelu Coupe d'Afrique ci football bi record yéenekaay nañu du yomb ndax final CAN U17 ci diggante senegal ak Maroc mbiri ñaari doomi gaynde lay doon Kenkeyri AAD moo leen doon may li ci yéenekaay yi. Xibaar yi

Eh, RFM yëpp. jërëjëf daañu ànd ci waxtaan wi ak sunu naataango Bakary Cissé di taskatu xibaar nekk rédacteur en chef bu yéenekaay bii di record Bakary ñu ngi lay nuyu. maa ngi di fay euh, Ndiogou di ci profité nuyu képp ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan euh, ñu lii di RFM. jërëjëf yow sax lay tàmbale en tant que taskatu xibaar euh, gis nga boobu ba léegi Sénégal ni muy joué ba yegg si tey jii ci final bi ndax li nga gis dal na sa xel et que mënees naa yaakaar suñu gaynde yi ay jël ko bi tey ci kanamu Maroc. jërëjëf euh, si invitation bi euh, donc euh, maa ngi ciy profité tamit di nuyu ki nga xamante ni mooy Badara Sarr wax naa ko sànq Badara képp ku nga xam xam ni c'est un entraîneur pondéré ki nga xamante ni tey mu ngi def liggéey bo am solo si boppu gendarme de Dakar parce que ñëpp xam na ni gendarme de Dakar depuis pratiquement dix ans. si guuta bu doy war la nekk mais moom mu ngi def kéemtalaay kattanam pour euh, génne gendarme fi nga xamante ni foofu la nekk donc euh, pour revenir sur la question yaakaar naa ne tey matchu finalu euh, Coupe d'Afrique des U17 du nekk loo xamante ni lu yombalee doon ndaxte Sénégal ak Maroc xamante nañu bu baax yàggul bi ñu fubalee ay match amicaux kenn ñetti match amicaux la ñu football kenn ku nekk eh, gagné ci benn eh, te ñu def match eh, beneen beneen match bi nekk tembo donc ce qui veut dire quelque part match tey bi mooy nekk la belle donc c'est vrai que Sénégal survolé na li nga xamante ni mooy Coupe d'Afrique bi mais man. gis naa ne sauf si demi-finale bi moom metti woon lool kon seen diggante ak Burkina. gis nañ keroog jafe na jafe na woon lool si ñoom. ci demi-finale bi gis naa ni beneen xaru kanam la Sénégal indi contre Burkina parce que waxoon naa ko sànq man gisuma équipe collective bi nga xamante ne moom lañ doon xaar te tamit sur le deuxième ballon gis naa ni tamit Sénégal pêché na si lu bare bare te sur l'ensemble du match Burkina Faso bu gagné woon kenn du kenn du kenn du kenn du kenn du am li nga xamante ne mooy mooy loo si wax loo xam loo euh, parce que sur l'ensemble du match, le Burkina Faso a pu jouer et, aussi a pu créer des, véritables problèmes au Sénégal. Parce que après match, le Burkina Faso le dit Sénégal a été donc l'un dans l'autre je pense que c'est un style euh, la ñuy jaakaar lool le style marocain c'est leur jeu est fait euh, de technicité mais aussi euh, de, de physique Sénégal c'est vrai que a une technicité mais amener une physique pour bu mais nag man li ma ñaax xale yi mooy ñu jéem a jouer collectif parce que euh, seen match contre le Burkina Faso ak même yenn match yi sax daanoon nañu gagné mais ay exploit individuel lañu am nañ def nañu ay jeu collectif mais man jàpp naa ne kuy ku ki nga xamante ni sa morom moo lañ gën a porté nga passe ko bal bi moo gën euh, que ngeen di bëgg ñuy bëgg a jouer li nga xamante ne mooy euh, individuellement. Mhm. nañ ñëwaat ak yow Bakary euh, wéyal waxtaan wi laata la ñuy ànd ak Badara Sarr euh, di coach bu Jeanne d'Arc Badara euh, keroog contre Burkina gis nañ ne suñu gaynde yi amoon nañ ñu jafe-jafe lool match bi metti Burkina sax daanaka dominer match bi yëpp ba ni mu mujjee ñu mujjee gagné tey ku xool loolu est-ce que doo am tiitaange ci ne tey jii beneen équipe la ñuy dajal Maroc ak naar yeeg yooyu noonu nga xam te ne macha allah dañuy xariñ est-ce que tey jii jarul tiit ci kanamu Maroc bu fekkee ne Sénégal ni mu joué keroog nan la nar waaw defe naa ni déjà damay commencer par euh, di remercier encore une fois euh, Bakary euh, ci li mu wax léegi ci vraiment challenge bi ma nekk ak Jeanne d'Arc yàlla di ñaan yàlla mu eggale ko ba nga xamante ne Jeanne d'Arc nañ ko jëlee ci fi mu nekk pour yéegal ko parce que j'ai aussi icône la si football sénégalais. Mhm. léegi ci match bi nga wax demi-finale bi ñu jàll contre Burkina yaakaar naa effectivement soo dee xool euh, bu baax par rapport ak euh, match yi am yëpp defe naa ne contre Burkina yi ak euh, surtout man daf may jox un peu comme match contre Congo dafa nekk ñaari match yoo xam ne dafa niroo yoo xamante ni Sénégal peut être day dugal waaye après dañuy am instinct pour jéem a conserver résultat boobu ba nga xamante ni dafay tax comme ñoom ay ay xale la ñu yore dafay daf leen di tëj daf leen di daf leen di téye daal en fait je pense que li ñuy wax rek enjeu bi des fois mo len di téye je pense enjeu bi effectivement euh, gagné won la contre Burkina pour euh, pour dem finale euh, donc c'est c'est normal si ay xalé yu toll ci âge bobu aussi ñu ñu defe non. noonu mais suñu xol football du Sénégal defe naa ni football la bo xamanteni dafa am ay dafa am ay qualité ay qualité yi nga xamanteni ci lañu ci lañ tok egg ba fi moy qualité athlétique euh, jeu boo xamante ne dafa dafa nekk droit dafa euh, direct daal euh, jeu bu bëriwul ay passe trop ba pare nekk équipe boo xamante aussi défense yi mooy force am parce que tey jii bien que attaque bi je pense que dugal na 13 buts léegi mais quand même défense bi nekk na force parce que genre compétition yu mel nii sax généralement dañ naan défense mooy gagner tournoi yi peut-être attaque mooy gagner, mooy gagner match ni su dee benn match la. mais Maroc ñoom ba léegi encaissé guñu de ñoom ñun encaissé nañ benn. mais Maroc ñoom ba léegi encaissé na deux buts contre Zambie defe naa def naa Zambie moo ko dóor deux un. Hmm. donc foofu soo dee xool Maroc defe naa ni jël na fa ñaari bi donc Maroc dugalul ay buts yu bëri nag defe naa ni sept la dugal. Hmm. donc pour dire que ni rek euh, nekk na opposition de style boo xamante ni tey euh, war na mun a tax ñun euh, peut-être ñu ñu jël notre notre destin en main man dama ni peut-être euh, match contre Burkina ñaar équipe yi niro won football la moy tay ji so tassé won Mali wala Nigeria, Sénégal wala Burkina Sénégal parce que équipe yooyu c'est seen force dañ koy def ci impact physique. Et ji équipe bi ñi tassel euh, mu nek Maroc c'est un jeu plutôt technique jeu maghrébin fait de possession de passe redoublée defé finalement, ni adversaire la bo xamanteni tay euh, war nañ ci mun ak ñun suñu pressing bi nga xamanteni dañ koy faral di def très haut. ak contre pressing bi ñuy def saa yu ñu ballon bi je pense que tey nekk na adversaire boo xamante ni war nañu mun a war nañ war nañ mun a réussir. Hmm. si sama si sama gis-gis. Ah. li si am nag mooy que effectivement Bakary wax na si léegi. mooy individualité yi. joueur yi nekk da bëgg a fësal sa bopp bëgg a sa bopp ba nga xam ne da ngay fàttali ne équipe nga nekk. voilà si côté boobu nag lañu ñu war a gën a liggéey parce que li ñu am si occasion si tournoi beeg léegi bëri na bëriwaay boo xamante ni suñ dugaloon peut-être euh, un tiers bi rek donc na fekk ñu weesu fi mais comme ay xalé lañ defe naa ni depuis le départ entraîneur mu ngi wax defe naa ni dañ ko régler ba nga xamanteni euh à chaque fois suñu nekké ci situation ñu euh ki nga xamni mo gëna baax ñu jox ko ba paré sur le plan technique parce que ay dernière pass yi ak choix yi ak baña a bobu boobu defe naa euh, heure bi vraiment war nañ ci liggéey liggéey bo xam ne suñu si concentré bu baax mën nañ def différence bi d'autant plus que équipe bu melni Maroc seetaan nako defe naa si bal arrêté yi aussi euh, seen match ak Nigéria foofu da nga doon xam ni dafa am euh, dañu xaw faible côté boobu. Hmm. bal arrêté yi su guddee parce que góol bi des fois sorti hasardeuse lay def. Hmm. aussi dans dans le jeu de tête aussi defe naa ni war nañ si mun a jafandu pour. mun a def différence. Mhm. na ñëwaat ak yow coach euh, wéyal waxtaan wi laata dañuy ànd ak Bakary euh, sànq coach Badara Sarr mi ngi wax wàllum enjeu euh, tey final la en plus aussi seen gaynde yi kade yi ñoom dañoo tombé contexte boo xam te ne Sénégal daanaka ñeent yoon am na coupe moo xam ne équipe locale bi équipe U23 équipe A bi wante tam équipe U20 yi tey jii est-ce que loolu du nekk pression boo xam te ne ñoom gune yi dina mën na leen a sonal non je pense que dès que lu gëna a li nga xamantene euh, c'est-à-dire euh, tambalé li nga euh, préparation avec des défaites aujourd'hui qu'ils sont là je pense qu'ils doivent pouvoir se faire plaisir c'est vrai que quelque part euh, bu ñuy xalaat bu lu bare li nga xamante ni seen mag def nañ ko mun na mun euh, de façon négative euh, si mais je pense qu'ils ont aujourd'hui un, staff technique très doué, très professionnel, qui dit Serigne Saloudia, au-delà du fait d'être le sélectionneur, l'entraîneur de l'équipe nationale de U17, il fait partie de ces, de ces entraîneurs qui ont supervisé l'équipe A. Donc l'un dans l'autre, moi je pense que Tedini, le plus important, c'est que l'équipe du Sénégal dafa a c'est pas pour rien que les la meilleure défense ce n'est pas pour rien qu'elle est restée solide et, compacte dans le jeu donc à mon avis euh, pour que pression bi ñu mun ko c'est dès l'entente de la partie qu'ils doivent aller chercher euh, l'adversaire et jouer li nga xamante c'est-à-dire l'impact physique jouer dans la verticalité te mettre un boole qui li nga monter ni collectif loolu permettre ñu mun toutes les actions offensives adverses parce que euh, pour que euh, euh, pour que marocains aient un client il va falloir que les sénégalais eux-mêmes essaient de mettre le pied sur le cuir doxal doxal man ni il suffit que nous def brin de collectivité pour que affaire bi mën na ñëw sinon day xaw a compliqué te man yaakaar naa ni Serigne Saliou euh, Dia wax naa ko il est assez euh, armé pour quand permettre à, à la Fédération sénégalaise de football mu yok li nga xamanteni moy mooy euh, un autre trophée de plus dans euh, son armoire à trophée. kon entame match bi manam maanaam le match bi dina am solo. naka nga kay aborder te tout au début naka ngay aborder euh, su ko defee rek après mom dina ci am solo ba nga xamanteni di nga xam fu nga jëm ak yoy no noo koy jouer. à mon avis loolu moy gëna euh, loolu mooy gën a déterminant parce que tay di ni xam nga footballu xalé la. Euh, te comme wax nga ko pression dina fi ne te pression xam nga final boo dëgg rek dafay ànd ak pression donc bu ñu euh, parvenir évacuer li nga xamante ne mooy pression bi dès l'entame du match moi je pense que yora y aura raison pour le pour que le Sénégal ne gagne pas cette finale là. Mhm. jërëjëf Bakary ñu ngi koy sant di lay gërëm bu baax a baax nekkoon ak seen naataango Bakary Cissé dañuy daaneel ak Badar Sarr ah, ci wàllum stratégie ndax euh, entraîneur bi tey dafa indi coppite ci euh, système ba mu doon jouer boobu ba léegi wala ah, ne ki maintenir ko euh, wala même stratégie wala il faut mu indi ay coppite xool naka lay fexee tam ba mën a gagné match bi parce que comme on di final kenn du ko jouer da nga koy gagné. waaw ah, je assertion d'accord trop trop pour jouer match aussi pour gagner match il faut jouer ko donc final la mais bu mu bu mu dépassé cadre cadre euh, si li nga wax coppite yi nga xamante ni nga ñu indi ko man trop trop trop que entraîneur bi di wax rek du ñu changer benn organisation wala méthode buy gagner donc defe naa une Serigne Saliou bi nga xamee ni ak Diallo donc euh, que je salue au passage biñ fa nekkee ba léegi début tournoi bi changement yu ndaw donc moi, bi nga ni deux journées ba même troisième journée peut c'est sûr que donc organisation bi du du sori mhm. <laughs> jafe-jafe Burkina est-ce que du tax indi rectificatif euh, lañ parce que hmm. mais dans si seen peut-être par exemple possession de balle bi euh, bañ a trop. mais du man xam sûrement du sori. équipe bi nga xamante euh, match parce que ma de départ le dernier match bi defe naa ci euh, soo organisation 4-1-4-1 le Sénégal donne joué di ba pare di nga des fois Amara mooy permuté ak à euh, dem euh, si benn côté wala mu dem donc il y trop trop que équipe bi par exemple qui ñu ngi sixième match donc cinq matchs, presque cinq et cinq victoires. Mmh. à mon avis donc si l'on continue continuer si l'on continue mooy que li nga xamante ni Bakary wax na si léegi mooy li nga xamante ni mooy euh, c'est-à-dire efficacité bi. efficacité bi ñuy wax si euh, devant le but. justement loolu laa doon bëgg laaj en tant que entraîneur lan nga gis ne mu nar a def différence bi la clé du match euh, lan lay doon pour yow. waaw defe naa ni clé wu match bi pour man li nga xamante ni tey sénégalais la defe naa ni mooy dal dal bi nga xamante ne xale yi dañ ko war a àndal. ba pare ñu mun a évacuer aussi pression parce que final la donc day day eh, bari li nekk autour eh, déjà présentation bi et tout et tout. ak public bi comme li nga wax nit ñu bari ñeeg non nit ñu bari ñi pression aussi eh, gagné cinquième étoile bi hmm. pour. comme li avec wax rek dynamique de victoire bi nga xamantene équipe euh, sénégalaise ñu ngi koy yore ba léegi. Hmm. pression boobu aussi ñu fexe ba xale yi bañ ko bañ ko gàddu. Hmm. ba pare nag nga xamantene moi je dis que match comme 90 minutes la wala 90 minutes plus tir au but ñu bañ a yàkkamti parce que suñu àndeek dal bañ a yàkkamti je pense que am possibilité à tout moment de faire la différence contre euh, cette équipe marocaine là qui est une équipe vraiment de valeur parce que Maroc a soo dee xool 3-0 la gagné Burkina euh, la gagné euh, Algérie après Maroc aussi Mali bi nga xamante ni moom peut-être ñëpp figure de favori Mali moo ko génn ci compétition bi donc il faut que nous jox ko donc, le respect qu'il faut. Hmm. ba pare vraiment dans l'impact, comme ni parce que effectivement loolu suñu arme dans l'impact physique nous ñu nekk présent dans le pressing dans le contre pressing. Hmm. ñu nekk présent mais nag am justesse technique ba nga xamante collectif dans la surface de réparation ba nga xamante ni tey ku mën a jekku rek nga morom bi Euh, taxawaay. pour ñu concrétiser. ba coach mhm. vraiment suñu dugalee ba pare su yàlla defee ñu dugal. ñu bañ a def un peu comme ni ñu defoon contre Burkina c'est-à-dire bàyyi leen ballon bi reculer. Mhm. parce que ñun tey jii suñu bloc. Euh, vraiment depuis début tournoi bi yëpp match yi ñu gën a def yu baax mooy que un bloc haut à médian donc suñ ko defee rek yaakaar naa ni yàlla mun nañ jàppale. jërëjëf coach ñi koy sant di koy gërëm moom coach Badara Sarr di entraîneur bu gendarme bu Dakar nekk tam secrétaire général syndicat des entraîneurs de football du Sénégal dellu tam di gërëm bu baax euh, Bakary Cissé suñu naataango taskatu xibaar nekk rédacteur en chef bu yéenekaay bi di record mbokk yi mu nekkoon gis-gis na woon tam xibaar yi El Hadj Ndiogou Diène moo nekkoon ci micro bi Aliou Mbaax ci machine gërëm Abdou ci production Awa Mbaye chef d'édition naka noonu tam Yacine Pouy yi ak tàgge yi Nope.